cant ak ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi a ne moom mooy Mbacké Sarr jàllut Aliou Sarr jàllul Amidou Deme jàllul kii di Daouda da dinay validé mi nga xamante ne nag moom mooy parrainage am Cheikh Bamba Dièye jàllut Omar Silla jàllul Cheikh Abdou Bara Mbacké moom tamit nag jàllul Talla Silla jamono ji dafa am suspense ndax mandataire am ba nëgati rek ñëwul kii di Jean Baptiste Diouf moom tamit jàllu Idrissa Seck nag jàll na waaye nag am na ay dossiers yoo xamante ne war na ka euh, complété maanaam daal dafa daal di manqué le li nga xamante moom mooy euh, parrainage am kii di Charles Émile Abdou Ciss jàllul Khadim euh, Diop jàllul Aliou Mamadou Dia parrainage na Birima Mangara parrainage am jàllul Amdi Diallo Fall parrainage am Ibrahima Mbow parrainage am jàllul Ñaax Laay parrainage am jàllul kii di Serigne bu Pape Djibril Fall moom ci jëmee boppam nag parrainage am daal di nay validé waaye nag am na trente mille parrain jox na rek waaye nag la mu war a defaraat rek toll ci 13 000 parrain moyens yoo xamante ne rek war na koo defaraat ba tey rek ci mbir moomu nag la ñuy daal di ñëpp ni ki démb lañ leen doon càmbar seen dossier seen lim nag toll ci fukk ak juróom-ñeent jamono ji nag jàllul ndax fii c'est parrainage da ko daal di modifié ba noppi nag jamono ji nag am na 31860 kat yoo xamante ne rek ay doublon externe yoo xamante ne rek validé wul ko ñu fàttali nag kii di candidat Adama moom tamit jàllul ah, maanaam moom itamit nag jot na reçu jot na reçu foofa ca direction générale des élections laata rek ñuy modifier li nga xamante ne rek moom mooy ab parrainage am kon nag ci gàttal rek kii di Boubacar Camara moom moo jàllagum ci yooyu les parrainages Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall dina bokk ci jogante présidentielle ñu dem ci atum loolu nag nag ab laaj la ak lépp lu mu ci mënti doon rek commission bu contrôle des parrainages mi ngi daal di xam ne nag ne moom ci jëmi boppam am na ay doublons externes yoo xamante rek mi ngi ci dossier am kon nag jot nañu daal di koy càmbaraat moom njiital serviteur daal di nay validé ci lu toll ci 30 558 parrain jot na nag mu daal di xoolaat 13000 parrain fii ak 48 heures du ñàkk dinañ ci xusandiwaat ci yeneen di jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu